waa zone de bu Ndindi ci njiitul alaaj Ndiaye programme mi nga xam ne moo di coordonnateur bi ak si la docteur Sylla Modou Fall Naïda Abdoulahad Diop ak soxna Fat Bintou Pouy muy responsable des femmes ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen ay collaborateur yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci bi campagne bi ba nëgë nii di dox li nga xam ne moom moo di ci fësal li nga xam moo di bilan président Macky Sall waaye gën a ñaax askan wi na zone bi nga xam ne fa la ñu nekk ba ñu gën a xam liggéey président Macky Sall mën koo votel mu mën a gagné li nga xam moo di élection yi ngóor ak ñaax fukki fan ak ñeent ci weeru février liggéey boobu le nag tey yi tëj tëj campagne def nañu liggéey bu ama am solo siyoone nañ ci biir Ndindi def benn caravane bu yaatoo yaatu waaye itam séddale fa li nga xam ne moom moo di ay jumtukaay ci askan wi ginnaaw ba ñu fa jógee nag ci la ñu dem fi nga xamante ni moom moo di tawfeex ci ay militants yoo xam ne ni demoon nañu bay gedd li nga xam ne moom moo di parti bi di APR ñu daal di leen delloo si ci biir waaye gën leen a convaincre ba ñu ànd ak ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall. li ma jotee egg si ci ñoom waxtaan ak ñoom lii daa leen jaaxal tey ndax diggante bi ma jëlee engagement yi ak tey dafa xat ma tànnoon rek responsable yi waxtaan ci ak ñoom. ne leen maa nekkoon ca lee di ca xeex waaye ab xeex rek la woon ña ma doon xeexal yëg nañ ne maa ngi doon xeex ak ñoom li ma bëggoon mooy ñu def lii ñëw ràññee ñu xàmmee ñu xam suñu jafe-jafe bu ëllëgee bu ñu nax ñu nasaale te jël nañ engagement yooyu xeex ba ma doon xeex jóg naa ci jël naa weneen yoon wu bokk da xeex boobu ma nekkoon yoon yi mooy wan xam ngeen ne Mor Sarr buy dajale mbooloo di réunion koo xam ne kaay leen ñu jàppale koo xam ne murit yëpp xëy nañ benn bis jooyandoo ndax jëmm ju sell jëmm ju kawe koo xam ne ay mbokkam ñoo meññ ku tedd ki Seexuna Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul mu bokk ci Bousso bi ñu di ko wax sëriñ Xaadim Bousso mu wóor ma ne suñu ko fi yàlla bàyyi woon ba nëgëni kenn ku ne dëkk Touba benn mburu cent franc nga koy jënd wala cent dix franc mais Idrissa Seck mii ñuy tool tey muy nax murid yi moo koy joxe ordre ne bu mu fanaan tey na ne na nekk néew coowul kese du fal su dëkk bépp toppoon kenn di riir ca fukki nit voté ci dëkk bi ca fukki nit yooyu juróom benn ya voté président Macky Sall président Macky Sall am li mu bëgg ñun nag soxna si wallahi asim billahi lii ñuy wax président Macky Sall taxul ñu di ñu di ko wax ndax olof dane lépp su ma cee aloom na ko gërëm a coy président Macky Sall taxul ñu koy wax premier dame taxul ñu koy wax administration Sénégal bépp kenn taxul ñu koy wax soxna Fatou Bintou Pouy mii di soxna sëñ Abdou Karim ak docteur Sylla mii nanu ñoo seeti nangoo wax ak ñun ñoo tax ñu bëgg laa defal li nga bëgg suñu eggee dimanche le 24 le 24 février côté biñ féete bu 18 di nga faat rek dina demati fu nekk. ginnaaw kàddu yooyu nag moom soxna Fatou Bintou Pouye yëkkati ay kàddu daal di fësal ne liggéey bi daanaka day doog a li nga xam ne moom moo nekk suñu kanam moo gën a yaatu te loolu lee duñu ko mën a def benn yoon lu président Macky dafa jëlaat réew mi am ñaareelu mandat su ko defee liggéey bi nga xam ne ni tàmbal nañ ko ci zone 2 ñu mën koo yeggali. képp koo xam ne mu ngi bokk ci zone 2 ci turu Alla Ndiaye programme ñu ngi leen di nuyu allahu rabbi yéen da ngeen ñoo nangul liñ leen ñaan ndax dañoo da ngeen ñoo naroon a rëcc rëcc boobu nag gannaaw ñun dañuy liggéey président Macky Sall moo tax ñu bañ ñu ñëw jël si leen. leen di sas mooy bu xëyee seen mbooloo yi nag leen woon technique de vote wax leen enveloppe yi bu ko kenn coller ba nga xamante ne ngoon fu ñu wootee ñu ne wiiw président Macky Sall sant nañ leen bu baax ñu ngi ñaan nii ñu tëjee campagne bi ci jàmm ak ci mbégte yàlla nañ ko amee nii. guddi la 24 incha allah ci barki Serigne Touba jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax a baax. ngi nii la soxna Fatou Bintou Pouye ak ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon liggéey bi jëm ci campagne présidentielle atum 2019 daal di tëjee li nga xam ne moom moo di seen ab campagne ci visite de proximité yi nga xam doon nañu ko amal ci mbooleem gox goxaan yi am solo yi nga xam ne ni séddal nañu ko ci askan wi waaye message am solo yi nga xam ne ni jàllale ko ci liggéey solo boo xam ne ni waa zone de bu def nañu ko ci campagne électorale bi amul benn coow amul tam li nga xam ne moom moo di benn xëccoo ñoom ñëpp bokk ndey bokk bàyyi ngir daal di faat ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall dès le premier tour ci dëkk bu sell bi ci Touba.